ma dem rek ci li nga xamante ni moo di revue de presse bi ànd ceeg Mantoulaye Thioub Ndoye dikkati naa coronavirus moom bàjju bi day ma ngay lal basang di dalal boppam ak i variant njabootam daal moom corona critique yéene kaay ne Abdoulaye Diouf Sarr day ma ngi liggéey waaye corona ma ngay lal basang rek covid 19 ci réewum Sénégal lu toll ci juróom juróomi téeméer ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay cas yees la ñu am ni ki juróom benn fukk ak ñettee ñoo ci ay cas grave fukki nit ak juróom benn dal daal dinañu ñàkk seen bakkan ni ki démb te coronavirus moo leen faat cay moom koro bàjjo bi vox populi ne ma kay sew na sew koo xam ne jëlee rek mu daal di fël feneen xoolal ma professeur Abdoulaye Lay endocrinologue bi lu mu wax ci yéene kaay bi nee ñi nga xam ne dañoo am jabet mën nañu am wopp coronavirus ba mu tëral leen te duñu am yaram bu tàng te duñu saxat waaye ni ki ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci jabet am wopp googee di leen xamal ni coronavirus nag ay ngànnaayam la ñëw fas yéene ñëw songu leen te bu leen songee mën nañoo am kàttan gën génn ci waaye dina leen loofal lool bu leen faatul ci moom corona bàjj bi mi ngi doxantu ci réewum Sénégal nan ko safee le quotidien le quotidien ne Marburg ak choléra ñaari wopp yi nga xam ne feeñ nañu ci dëkk yu ñu jege lool docteur Marie Xames Ngom ma ngi cay leeral xel yi nee na wopp yooyu yegsiwul ci réewum Sénégal te ñu ngi def kéemtalaay kattan ba dugg ci réew mi le le quotidien ne desal ci wopp ji ma wax ak yow ak Moustapha Diakhaté mi nga xam ne dafa wax ak ñun nag ci kàddu yu dëgër lool xamal ñu ne màgga Tuubaa gi war saam ndax li tax ba jullit yi demuñu mag moo war a tax ba benn rassemblement du am ci réew mi moom Moustapha Diakhaté ne man de façon rassemblement yooyee man Diakhaté ba Yéeri duma ci bokk sëriñ Cheikh Abdou Lahad Mbacke daal di koy xamal ne woo ak piccum ramatu xamoo fooy tàggat moom sëriñ Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma nii sëriñ Muntaxa Mbàkke day joxe nay tegtal la ñu defoon màggalu daaw ba am ca ndam korona topp ñu loolee la ñuy def rek moom Mbàkke Balla ay sane ma ne dama ni ngeen concentré wu ci wàccaay du jut safar gi te ngeen bàyyi waxkat yi ak taaxuraankat yéeg léebukat yi ñu wax le quotidien le quotidien ne bul sore de desal ak man ndax nag diwaanu Saint-Louis gée piyeesu juróom fukk ba la ñuy bañ a jël moo taxit commissaire Tendeng ma ngay artu jaaykat ya foofee ca diwaanu Saint-Louis direct news ne boobee quotidien ko quotidien ne ko waa bennoo bokk yaakaar dina ngay tontu opposition yi opposition bi ci li ñu nee dañuy def ay fraude ci élection locale yi vox populi ne Ousmane Sonko day ma nga ma bu am solo boo xam ne opposition bi la bëgg ñu daal booloo nekk opposition bu am doole ngir song président Macky Sall waaye tam songi élection yu di dëgmal moom Sonko daal dina koy door sol na ab yére panafricaniste lu toll ci fukk ak ñett ci ay parti moom Sonko lëkkaloo ak ñoom moo tax direct news samp laaj laaj nag ndax Sonko dafa soppi doxalinu ko feem kaddu ga sax daf caafaf boole ko soppi ko ndax nag kaddu guerrier la chef patriote yi doon wax waaye niki démb booloo daal la daal di woote mooy doole soo góor daal dajaleeg boole la woote laaj ba samp kay moom moo di ndax nag duñu dem ci ab coalition bu mag boo xam ne diggante taxaw Sénégal lay doon ak Pastef lu ci mënti am daal bugaan ak sa el ba moom direct news ne Bougane Gueye Dany day ma ngay xëccoo leadership ba ak Sonko ni ki démb nag gaayu Sonko yi dañ koo tuumaal moom Banda Diop ne dafay jël nag ñenn ñoo xam ne dëkkuñu fa ñoo xam ni padduwaa xamuñu leen sax di leen jëbbal ay certificat de résidence moom Banda Diop ne su ñu amee génn preuve ci lii nga xam ne tuumaal nañu ma ko ma bàyyi lépp lu ma doon def ci wàllu activité dara nag ca la ñu wax amu ca moom Banda Diop yamu ca ndax nee na bu nekkee ni nag nii la ñuy defee politique ñoom patriote yi di wax loo xam ni amul làmbaay daal dina ñaaw lool en attendant 24 heures yéen a kaay ne Pastef daal ña ngay doxal de ña ca la nekk rek démb moom grand jeu ba lañ faf daal di génnee ngir waajal élection locale yi Sud Quotidien ne élection locale yi day dina am du am caution ba doon naw coow daal dina leen dina xaajale ci digg bi critique yéene kaay ne waxuma la caution ba kay laataa ñu ca egg waaye révision yu liste électorale yi soo moytul ay pëcc xoo ak réeroo ba sax violence mën na caa am doy na waar Sud di ma xamal ne Abdoulaye Thiam day tey boo moytul dina wutuwaat boppam ci ANPS assemblée générale tey jii lañ ko fas yéene amal waxtu woow la Soleil yéene kaay mi ñu dugal nag ci biir kër Ousmane Sow di ñu xamal ni nag la mu yett di ay œuvre d'art naka la ñu amee jëmm ci këram googi liggéey daaneel libération yéen njëkk ca xam le ni ab xale day la ñu sàcc ca Kaolack mu daal di feeñee ca diwaanu Mbuur ca Medina bàyyi lañ ko tegee loxo ka ko sàccoon di air Thiam daal di leen koy teg loxo ni ki démb libération yéen kaay ne ma ca sigi coor lu metti te daw yaram moo fa am Yvonne Diédiou day moo fa daal di xaru ci kanamu doomam bu jigéen bu am ñaari at bésug anniversaire doom ca la Yvonne taamu daal ngir xaru l'enquête yéen kaay ne ma ab xaru bu metti yi daal dinay am de waa ji daal jabaram moo daal di dóor ci kanamu njabootam di fameem xamul lu muy fajee boobu le naqar mu daal